bi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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di dalal gan gu tedd di borom xam-xam bu ànd ak yar ak i teggin muy Serigne Hadi Niass ñépp xam nañ ko ci mbaax ci xam-xam ci laabire julliti senegal ak mond bi loolu mat naa ci seere sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya ñooy doono yonent yi dellu ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfa kon ku mat a terale ngi nii kon dono yonent yi benn wàcc na ci tey fii fekk fi ay kilifa muy Serigne Abdou Khadir Jili Mbacke mii yor xalifa kaddo xalifa général fii ci Touba Wu Rasul ak Serigne Abdoul Jalil Silla mii di coordinateur daayira bi ak sëriñ Jëwriñ ma faal sekk mais di kilifa ci daayira bi waaye Serigne Khadim Diop mii boo gi déggee ñu naan àdduna dara du hasard ca sëñ Muntaxa la jóge moo sës rëkk ci moom xam naa bu fa jógewul démb jóge fa bëkk démb moom la sëriñ bi jox kër mag moom mooy dalal gan ñi waaw yëkkati doomi boppam jox ko sëriñ Xaadim Jóob mii muy jàmbaar lool nag ci liggéey bi ànd koog ñun saa su ne di sunu kilifa ñoom de nee nañu ñi ngi lay dalal bu baax ñass yaak ñi nga andal ndax li nga def rafet na lool ci l'islam waaye rafet na lool ci talibé cheikhul khadim yi ne fii ci dëkk bi ak képp ku dib julit ndax lii képp kuy jublu penku di kabar dana dana ci am mbégte tey loolu moom mat naa ci seere kon ñoom nee nañu ñi ngi lay dalal jàmm di feeñal seen cofeel ci yow di feddali seen kóllëre yi nag ci yow tax di wan na la tamit koo xam ne kii ku ñu fonk nga ku ñu bàyyi xel nga ndax sa mbaax ak sa xam-xam kilifa yi liñ fi rotal ci kàddu mu jëm si ci yow lot naa ci wàcce ko dañuy feeñal yéene rek waaye ba ñu ko waxee ne yaa ngi ñëw boobu ba léegi ñoom li ñu woo mooy dalal la jàmm nga yëg seeg jàmm ñu saafonteeg yow waaw kon daal xam naa dañuy wàcc kàddu yi foofu ba ñu nuyoonte ba noppi su ko defee incha allah ñu jéem a wéel waaye lu mën a xaw daal bismillah tafadal maskora dalal nañ la bu baax jàmm fekk nga fi ay kilifa ànd nga ay kilifa yàlla na nu yàlla mottali waaleykum salaam. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Khadim Diop nee na asalaamualeykum. waaw waaw. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi duyu bokki jullit mm, di bokki taalib yi mu rëy ci sunu gan gu tedd gi nga xam ne ñëw fi. muy sëñ Adi ndax li am solo ku xam na ne ci la yëngu muy diine mu mel na tànk yi ñëwee fii itam eh, tànki diine rek la ndax lii de mooy lislaam jóg xam ne mbooloom lislaam ñoo nekk fii bañ ko ba taxawal fi juma def fi kër sëñ touba gu kon bojuge jógee tan xam sa liggéey ni muy ni muy ni muy demee ci l'islam kon ak cant lay doon go xamantene ne wares na ci mana mana mana mana mana a ay kàddu kon sëñ Adi jërëjëf bokk yaangi sante bu baax waaye kàddu yi itam ñu di ko yëkkati ci turu sëñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi waaye di ko yëkkati ci turu ba tey nag sëñ Abdou Jalil Silla mi nga xam ne moo bokk moo nekk ci bopp yoonu murit fii ci Wourossogui gi jiite dayre bi nun moom noo ko yow yam rek dañ fee yam di gan waaye noonu ko sëñ Ibrahima Jabaay waxe dara du asaar man naa am suñ dikk gi yàlla tudd na ci nu war a daje fii ndax jàpp naa ne daje gi ak yow ak kent la ci nun gu waaye xam nañ ne sa cofeel ci sëñ bi tax na lu bawoo ca moom rekk boo dajeeg moom cant rek nga ci am kon li jar wax lépp daanaka sëñ bi jabaay wax na ko sëñ Ibrahima waaye lislaam day soxla na ñu mel na yow lool ndax ñu mel na yow dañuy dundal lislaam ñu mel na yow dañuy yàq lislaam te loolu ku ne xam na ne moo doon liggéeyu saxaabatu sol kon liggéey bi daa soppeeku waaye bi mu soppeeku mel na ne na ca saxaaba yi doon doxee yow yaa ngi ci dox sa la ci bir réew mi ak fépp loolu nag kon ñu ngi lay sant te di la ci gërëm euh, te nga xam ne loolu it euh, mbir la moo xam ne bi nga ko defee ba noppi sa bopp nga ko defal ndax ku def lu baax ku mën a doon rek sa bopp rek nga ko defal ku leen ne jaajëf baax na ku leen jaajëf it fekk bu la suñu borom ne jaajëf muy gën jaajëf yi ñëpp kon nag ku nekk ci toolu suñu borom bi di ci xëy ak gont ba nga àgg fi nga ci àgg ci aw tur ci ab liggéey te lépp nit ñi teg ci seen bët loolu ak sant yàlla gu la kon sunu borom yàlla la kàttanal defal la ndam ci liggéey bi guddal saw fan lépp loo yëkkati yàlla yombal la ba ba nga àgg ca ndax sëb liggéey moom liggéeyu lislaam rek la boo amee ndam it lislaam am ndam rekk la kon nag loolu faw ñu di la ko ñaanal xam ne tànk yi nga doxi du tànki caaxaan ndax lii mooy diine fii ñi fi nekk di njabootu sëñ bi ci diine rek lañuy dund kon ku fi ñëw te agsi ci ñoom wane wane wane wane nga ne yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi dund diine yaa ngi liggéey diine muy lu am solo ndax lii dafa bokk ci lu am solo ci lislaam dafa bokk ci lu am solo ci lislaam muy jokk bu ñu nee jokku bokk waaye nañu ne jokku lislaam lii nga def moom mooy mooy lislaam ndax lislaama la fi indi ñuy dund lislaam moo tax nga ñëw fi kon loolu sa tànk yi ak ñu nga fekk si ñépp taw féex la ju rëy ah joo xamante ne kon ah, ah, xam naa bu nu ko toppee ci suñ yéene ci suñ yéene ah, wax ji dana yàgg lool waaye nag suñu xot moo fees rek ak xam yéene taalibe yi itam yéene jiñ am ci yow loolu moo rëy lool ba ëmb lu bari ba tax na kon su cee ñàkk guddal waaye guddal gi léppit nag guddaluk defar rek la kon ñoo ngi jéggalu ci kàddu yi di di di nga xam ne daal mbooloo mi nee nañ la dalal jàmm te li ngay wut si yàlla na nga ci am lu kawe sa njort jéego yoo ma sa jéego sa jéego yi nga jóg ngir ñëw fekk si njabootu sëñ Touba yàlla na ci yàlla defal ndam lu kawe. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp mbégte rek moo tax mënuñu wax dara jërëjëf Niass. barakallahu Serigne Khadim Diop Serigne Abdou Khadir Jili Mbacke nee na soo waxee rek wax jooju day doy nee na moom jërul muy wax dara. waaw dafa mel ni ñi ngi may wax ne soxna yi tamit bëgg nañoo siyaar Serigne Hadi xam naa kon bu ngeen leen xàllalee ñu toog noonu rek. dinañ mën a jàkkaarloog sëriñ bi ñu ngi lay seereel suñu wëllëri yi di sa waa kër as mbaay mii lu murit yi nekk ma nga ca biir moog Baye Niass mee jiite mbooloo mi fii Cheikh Baye Niass mii as mbaay mii ñu ngi lay seereel ne ñun ak ñoom benn dong la benn dong la amul tarixa fii gi daira ahbabi bu alaaji malik daira xidmatul Qadim, daira liwahul Hamdi, bu ay ak manam ku fi ne tariqa bo meuna a dañu boole lepp muy wern dal wu nañu dañuy rafetal seen digënté di doxlanté ku aye sa morom da ngay genn ay tiset jox ko mu yanu la saw xew ba xew wa ñun fofu ñun dundé fi ci wuro loolu moom dinañ la ko seereel bu baax ba nga dégg ko fi moom l'islam rek a fi ne daanaka tarixa amu fi l'islam a fi ne ñu baax la ñu wax dëgg yàlla ndax moom moo woote tey ñëpp moo leen woo moo bàyyi ñas ma le suñuy wólëre lañ ne ñu ngi ñaan seen taxawaay yàgg ak sëñ Moussa Seen nii waaw kon xam naa dañuy wàcce kàddu yi te jox sëñ bi rek mu doxal incha allah bismillah tafadal mashkur tabarakallahu الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكي توبا Ourossogui mang leen nuyu yeen ñepp ci seen tur ci seen jëm ci seen sante nuyu bi gëna tedd muy alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital ki yalla jital ci barab bi di serigne Abdul Qadir mbacke di ko jox cër bi ko yalla jox di ko timit wacce way diko ko wacce te yonent bi di santaane ne wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay di ko ñaan yàlla dëgëral ko dolli ko te dooleel ko yokk ko ndam loo xam ne lépp dafay dellu ci ndamal lislaam nuyu mbokk yu baax yiñ fi fekk yépp rawatina jëwriñ ju tedd ji nekk ci suñu càmmooy sës rëkk ci sëriñ Muntaxa mi nga xam ne ku sellut baaxoo juboo mënoo sës ci moom mukk tabaarakallaahu ñu ngi lay nuyu jóob bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne wax nga ko muy kàddu yu ama am solo te kàddu yi yëpp tamit ci yow rek la ne moo tax nga ñu koy seedeel jëwriñ ju baax ji tamit ubbi kàddu yi nga xam ne bu ci kàddu yi yemoon sax ñu ñaan lante bi ñu doon ut ñun ñëpp am nañ ko ndax kàddu la yoo xam ne dafay tegtale ak bennale waaye tegtalewut ak bennale moom tamit yàlla na ko yàlla jàppale jàppale As mbaay baay Niass ak seen ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi fi aju ci daayira bi ci kër maam xalifa ñu ngi leen di sant bu baax te leen gërëm aju ci kër tamit Mawlaay Alxaaji Abdallahi Niass delloo nuyoo sang yu baax yi xir tax ci ñoom lañ jëm sax waaye xir ci lu baax tax na ñu ñëw di ñu gàttañu si mu mel ni la yonentu yàlla Muusaa waxoon ne wa ajiltu garab rabbi li tarda muy suñ mbokki mogo yi ak suñ mbokki tayba yi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax li nga ubbee kàddu wi rek mooy lislaam moo ñu fi indi lislaam képp kum ñor fépp fu lislaam ne rek wala ñooñu lislaam nekk fa rek war nga faa dem ci lu dunul xejjale ci lu dunul seenale ndax ku gis néegab yàlla bu toll nii ak lim ëmb ku ko taxawal lislaam ñor na la te su fekkoon ne fii rek ngeen ko taxawal ba doon nii bi rek la suñ mbokk murid yépp taxawaloon doy na firndeel ci lislaam waaye ñun ñi yàlla nattu ñi gudd tànk fépp foo dem ci àdduna bi juróomi continent yi boo fa demee rek danga fa fekk jeexitulu xaadimu rasul si Ahmad Bamba ci liggéeyam dem nañ Amérique dajee faak tabaarakallaahu doomi sëñ Murtala bi sëñ Maamoor di suñu xarit suñu soppe gis nañu liggéey yu am solo yu rëy yi nga xam ne baayam ju tedd ja sëñ murtalaa simboon na ko fa bi mu ñëwee tamit lépp mu mottali ko bu yàggul lañ bàyyeekoo itaali ci gox yu fasantikoo ci place yu wute yu bari mën naa wax ne conférence yi ma def sax ci kër xaadimu rasul ya ak seen mbooloo ma moo ëpp sax yeneen conférence yi ndax ñu ci bëri su ma demee tey seen conférence yi dañuy far rek dem yóbbu ko ci kër xaadimu rasul si Ahmad Bamba xam ne kër ak lislaam la ci place yu bëri biñ demee France gis nañ fa lu mel noona bañ demee Espagne gis nañ fa lu mel noona bañ demee Gabon gis nañ fa lu mel noona biñ demee Côte gis nañ fa lu mel noona ba ci turki foo dem ci àdduna bi rek da fa fekk jeexit lu liggéeyee Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon nag ku mel noonu ak lu mel noonu su fekkee lislaam dafa laa ñor fokk war ngaa dëgg sa tànk dem ba foofa gis loola nga bég ci ndax bégee kuy bëggee lislaam moy Islam, l'islam kon li niñ ko waxee moñu fi indi ñaarel bi timit dafa am buma kóllëre guñu yewé ci digënté suñuy imam ci diggante maam Alaaji Abdoulaye Niass ak ci digënté Xaadimu si Ahmad Bamba ak digënté mamour jara ñom mamour jara ak maam Alaaji Abdoulaye ñoo xaritoo woon nekk benn jëmm soppante bëggante ba ñoom ñaar ñu fasante kóllëre kenn ku nekk wax sa moroom ne su ma la gën njëkkee génn àdduna li may jaayanteeg yow ñëwal ba ci sama xabru ak fu ñu mën a denc nga tiim ko jàngal ma fa ñeen fukki yaasin ak ñaar wala ñeen fukki yaasin ak benn muy du am xaw ma nag lu jublu ca lim booba yàlla dogal Maamoor Jaara njëkk a wàcc liggéey 1921 la léegi la wàcc liggéey maam El Hadj Abdoulaye Niass mënta dem gi rek mage taawam bu tedd ba bu sell ba boroom xam-xami borom xam yi maam xalifa Niass la yebaloon moo dem mottali nisaram jooje ci xabru Maamoor Jaara ba moo mottali nisaram booba dem jaaleel ko Xaadimu Rasuul si Ahmad ba keroog la njëkk a gisee ñoom ñaar ba mu ñëwee kóllëre googu continuer di dox. fekk njëkk loolu benn taalibe boo xam ne sax xam naa maam lay doon ci ñii euh, sant seen nekkoon dànk seen euh, nekkoon bu njëkk ba ci daaray xaadimu rasul mu jigi mu ñëw nekk ci daaray Alaaji Abdoulaye Niass ca Koosi Sëriñ Tuubaa gis ko ne ko gën naa laa gis mu ne ko man de maa ngi mottalee samay aliwa ca daaray Alaaji Abdoulaye Niass gi ca Koosi mu ne ko def nga lu ma neex lan nga yaakaar ne su ma ko ko defalee dana sedd xolam mu ne ko loo ko jox da koy joxe ba mu mooy téere boo ko joxee yére mu joxe ko boo ko joxee xaalis mu joxe ko boo ko joxee leneen mu joxe ko waaye daal téere la mënta joxe mu yëkkati téere alquran di tafsirul nii teg ko ci loxoom ne ko boo demee teg ko ci loxol Alaaji Abdoulaye Niass xoolal baat ya ci Xaadimu Rasuul tofal mooy dana neex yàlla lool dana naqari seytaane loolu la ko jox ko ba mu ñëwee Maam Alaaji Abdoulaye Niass bég ci téere bi moom tamit xoolal kàddu yi mu tofal dafa ne Xaadimu Rasuul si Ahmad Bamba mii yëkkati téere bi gën jox ma ko dafa bëgg ma gën ki la jox li gën bëgg na nga gën woo taawam bu tedd ba maam xalifa mii ne ko ah Xaadimu Rasuul de defal na ma teraanga teraanga teraanga moo koy fay dama bëgg nga defal ma ko ay abyaat yoo xam ne danga nga ko koy yónnee yëgal ko ne ko jot naa ci teraanga ji te naa ci kontaan naa ci waaye nag sàmmwante la mën a wayam ga ndax mo dak way nar yi nga samu wante wilayam ga ak mayam ya ci la mam khalifa les khalim ba gane aska salamin ka taami suhdi bi raaxi yanuubu anna wisal raaxi bi raaxi aska salamin kariil miskin nafhatuhu muattaran bi nawahi shayqi fawahi cheyqun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama thanaa'i bi mutrihi wa amdaaxi أتحفتنا بكتاب لا نظير له أروى غليل صدانا بعد اللواحي هو الجلالان تفسيرا لمنصبكم مصباح علم كالضوء الصبح اللماحي دي ني ديغول العرب سا خمنا ني نيهنا بيم كوكو جوخي خادم الرسول دا فا و دومم يو ماغي شيخ محمد بن المصطفى و سيرين فالو و سيرين عبد الاحد با و سيرين صالحو ne Mouhamadou Aminata mii di taawab El Hadj Abdoulaye Niass bi de jër naa def nawle ci xam-xam xooleel bët ay abyaat yi mu yónnee ma rafetaay gi sëriñ Saaliwu bu ñu mosaan dem màggalu tuubaa bu ñu ko nuyoo bu ñu ne askaa rek mu ne ba ñuy nekk tuut tànk lañ ko mokkaloon mot motali lépp kon kóllëre googu moo ñu yeewee diggu yàgga yàgg yàgg loolu nag ca maam yàlla jaar ci bàyyi dem ba ci sët yi maag Seydi Mouhamadul Amin ñaata yoon lañu ànd dem tuubaa Euh, dem seeti tabaarakallaahu euh, xal ku fay xalifa rek fekk nañ ko fa waaw ku fay xalifa rek fekk nañ ko fa ànd nañ ta tabaarakallaahu dem seeti sëñ baara ba ñu àndee sax euh, sëñ sëñ sëñ Mouhamadul Amin ak mbaaxam damaa ñëw rek mu commencé présenté ñëpp tudd kii diw kii diw ba ci man mu ne ko kii mooy kii mu ne koy kii jarul présenté moom dama koy déglu sax loolu la ko sëñ baara wax ñëpp a ngi toog yëkkati teraanga yu nekk defal l'islam moo ñu fi indi fekk nañ fi l'islam ñoñi l'islam moo ñu fi indi fekk nañ fi ñoñi l'islam simahum fi wujuhihim min athri sujudi dalika mathaluhum fi tawrat lol bu ngeen waxuton rek buñ ko gisee gis ko ci ñoom kon fekk nañ fi ñoñi l'islam fekk nañ fi l'islam li moy sembulu l'islam bu mag bu fi dul dess kon la leen sëñ Murtala waxon yéen nga ci dafa leen yagga wax ne nit ku nekk fu mu nekk war na faa l'islam waaye yéen bi ngeen ñëwee fi nekk ay commerçant mandargeen nga fi de lii màndarga moo xam dafiy des ba péncam yàlla yàlla na yàlla def yiw yëpp yokk ko def ko ci seen misaanu xasana def ko tamit ci misaanu xasana kilifa gu tedd gi nga xam ne moo son moo moo moo fondé woon lii lépp borom xarajtu yow ma sabti thamina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar yàlla na yàlla defal jàmm adduna ak ju àllaaxira defal nga teranga àdduna ak ju àllaaxira jërë ngeen jëf allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim